ay tentes provisoire ngir dalal ñu loru ci mëndëm mi fofé ca Kër Massar ak parcelles yi bokk ci commune bu Jaxaay ñoom ñooñee nak ñew fofé ngir am ay dalluwaay ginnaw seen kër yi fess del ak ndox ba xamné kenn mënutu fa dëkk ak karangé ma nekk ñëpp dafa am ndox ñu fat ma fi ma ngi sant yalla maa lek lekk naan ma sama njabot maa ngi sant ñoo fi indi nak ñoma ma recevoir ñoo ma jàppale ma maruma sama dara manké wu lepp luma ma daan dawal sama njabot teggal nan ma ko man dama doon luyé rek. ma doon luye aw mu kër tey ma fay luyaas suba du ma fay luyaas sama bagage am na yu ma dénkaane am na yu des sa ndox ma waaye muñ loo ko yàlla da ndax ñi leen ma defal moo ma ëppal lépp damaa dégg rek ñu ne kaas ba dañ faa duggal ñi seen kër yi am ndox ba ma ñëwee ma xamal leen ko ne leen man da ma kër damay wër du luye rek dan may abal ma génn ndax aw ma ku ma yor waaw ba ma ñëwee ñu xam loolu tamit ñu ne fii ñu nekk ci ndox mi la ñuy jàppale ci ndox mi dinañ la dugal ba ma dugalee macha allah ma ngi leen di gërëm ma ngi leen di sante ma ngi wuma daal ma ngi sante Yalla fépp dañ fa dëkk ndax moom fu mu jëm ci kër yi la jëm ci moy problème mo ñu indi problème suñu kër yëpp yàqu na fële fa ma nekkoon fess ñu indi ñu fi parce que indi 13 lañ joggé ñoo fi jaxay ben la nak waaw loolu la mo ñu indi fi man kay étage la def nak sama deux ñaari jabar mais ñoom ñëpp gënné nañ man chaque nawet sax ma daan gënna ah, parce que parce que xam xamna situation yi parce que ñu war nañ man 30 la ñu fan wérat at ba mag léegi léegi ñuy depuis temps maire Mbacke ba léegi commandant gendarmerie Kër Massar ñun ñëpp dañu daan jàppale bu njëkk léegi moom parce que parcelles yi dañuy jaay fii jaay fii parcelles yi bari fekkoon ñun njëkk a jaay dañ ko defar ba mu baax ñu jaay yeneen mais yéen njëkk jaay yooyu ñu ngi ci di problème ñu dikk diwaat yeneen donc problème day gën a bëri parce que route de Boune bu baax léegi-léegi man 25 ans ñëpp am na sax mooy waa marché Jimbo ñu indi foofu ñun dañ leen ba tabaxal leen foofu a boobu léegi ñun ñu ngi xaar ñaan danañ defar danañ defar boobu léegi daal situation yi moom vraiment doy na waar daal. ren rek lii kay ren la ma masa dal masa na ma dal ma jënd camion sëkk ko mais sama doom bi tabax ci suuf si wàññi ko mu door maa dalaat bi mu kiyee rek la sama sët bi daw ñaari yoon daanu ci ndox mi ma daan ne kon damay génn dem jaxaaj sama ma bi xajuma fa waaye naa dem jéem a dem baxam xam mu fat ma moom da doon tëraan ni bàyyi ma foofu ci néeg bi sama njaboot léegi ñu wax baas ma ñëw bindu ci li ko waral mooy sonn nañu ndox wër leen té xamna na ku ne xam na ndox kenn mënut a dëkk ak mom si le chef d'état lancé plan Orsec ñu daldi def camp yi ñu recevoir ci ay sinistrés. pour le moment il y a 30 familles sinistrées yu fi nek site bi taxawal nañ ko depuis le 15 exactement le 15 septembre bi ñu nekk lañ taxawal site bi. ginnaw bu mën na mi taré lool ci zone yi ñu nek muy jaxay ak liko wër yëpp.

parce que tout le préfet moo ko coiffé sur instruction du gouverneur bi nga xam ministre de l'intérieur, instruction instruit ko ci ordre le président de la république préfet ñëw ànd ak sous préfet de Bambilor ànd ak le maire ñu identifier la cité, ba commencer installé fii pour sinistré yi war fee ñëw. ngir ñu dalal leen ca centre boobee nekk foofee ca Jaxaay 1 da am ay mbir yu leer yu mu war a àndal. mbirum ndimbal mbirum loraange doo taamu ne kii fii la ku sonn jaaxle rek boo ñëwee war nga koo dalal. donc fii amul fenn foo xam dañ naan waa Jaxaay fi dëkk la wala waa Kër Masar la wala Dakar ku sonn jaaxle da nga fi ñëw loolu nag teewul it dana amit càmbar ndax du ñu ne rek nañ ñëw ku nekk jóge fa la ñëw ñi nga xam ne amoon nañu jafe-jafe rek te du mbënd mi raaxaloo ci ñëw looloo dañ ci doon liggéey ak le commissaire de police ak les délégués quartier les bon volontés les ASC Croix-Rouge ak ñu bari pour xamal nit ñi nañ ñëw waaye ñu xamal képp kuy ñëw it danañ bind sa adresse danañ dellu ba sa dellu quartier pour xam réellement fii nga dëkkoon ak xam sa kër. comme ni nga ko gisee defe naa bi ngay dugg am naa yaakaar ci ne defal nañ la thermoflash am naa yaakaar ci ne exigé pour nga nga raxasu te loolu mooy am depuis boobu ba léegi aussi donc mesure barrière masqué defe naa ne gis nga ko chaque fois bu ñu xëyee dinañ distribuer masque bu demee ba jam ba mu war a kii dinañ ko changé masque yi doyee nga fi saaboo nga fi eau ñëpp nga fi ñu ngi toppatoo loolu bunt bi c'est contrôlé kuy dugg dinañ la contrôlé xool la. am na aussi équipe médicale bi nga xam ne nga fi euh, renforcer nañ leen ci ay garab tey ànd ak waa Croix-Rouge di leen jàppale ànd ak di ma wax léegi muy volontaires yi nga xam ne dañu jóg pour ñuy encadrer di waxtaana ak ñoom ba ci xale yi sax di jéem leen encadrer lépp ñu ngi ciy jéem lu ñu mën. ay ndaw yu bootu ca Croix-Rouge ak éclaireur yi di leen taxawu bu baax ci wàllu set gi respect des mesures barrières ngir faggu ci coronavirus bi dem bay sax bay saytu seen yaram. Au centre bi suñu nous mooy pour parler avec une population sinistrée yi le ZENA ci parler leen ci domaine hygiène domaine médical parce que Croix-Rouge lépp les problèmes de santé Nous dañ ciy participer surtout un problème d'hygiène. hygiène nous Nous fait saa yu ñu famille.

kon ñun du ñu def lu dul gën a njaax nit ñi ci hygiène bi daal par rapport ak à comportement waaw ci loolu daal ci lañuy ñuy gën a veiller ak restauration bi tamit dañ ciy jàpp qualité bi dañuy veiller à que foofu di set fi ñuy toggee ak tamit euh, seen poubelle yi comme sànq bu dee seetlu ngeen bi oto mbalit ñëwee dañ génnee poubelle yëpp dem génnee ko ci biti dem tuuri ko euh, tant bu newit da nga am sa poubelle sooy kii poubelle yi dañ koy tek ci devant la porte ku ci am mbalit rek da ngay dem sànni comme ça bu auto mbalit bi ñëwee ñu jël yooyu yëpp yóbbu comme y a des familles qui sont un peu nombreuses moo tax yooyu yëpp foog ñu veiller ci waaw maladie yi ñu fi gën a seetlu diabète am na fi y a des diabétiques y a des hypertension ak lan jaaxe am na mais bëriwul am na tuuti cas de jaaxe waaw chez les enfants grippe tamit am na fi waaw ah, surtout grippe bi moom bëri na fi ak tout. ci médicaments yi am na yu fi ne am na yu fi ne am na nag yu ñuy demandé pour ñu jàppale ñu ci comme saa liggéey bi yomb waaw moom la ñuy demandé nii actuellement. non non pour le moment moom alhamdulilah te ñu ngi ñaan yàlla mu continuer noonu. non ça va vraiment parce que ñëpp ay ay xarit lañ ay collègues lañ xamante ne yàgg nañ ñoo bokk Kër Massar vraiment parce que yàgg nañu daje ci ndox mi man ñoom ñii nekk ci mairie bi depuis mairie Tamba ba léegi ñu ngi ci ndox mi. moom ma benn jafe-jafe wax dëgg yàlla waaw xale yi ñu ngi may toppatoo bu baax sama lekk manqué wul sama naan manqué wul jox nañ may mat laa jox ma wante la tool jox ma musique jox nañuy si way naanukaay wax dëgg yàlla ñu ngi ñuy jox añ di ñu jox reer di ñu jox ndékki seen taxawaay daal rafet na wax dëgg yàlla su may génn amu benn jafe-jafe xale yi may génne waaw di ma jàppale baax maam lañ ma def di ma maame ñoom ñëpp waaw maa ngi sant yàlla bu baax. di len sant aw nak ben benn kay sama borom kër dafa gañu bimu gañu légui ñaari at la waaw aw ma fenn kay yor njaboot nan may dawal sama bop dépasse kenn jàppale ñu won amna ñu bari ñoo xam bi ñu toogee dañ no jël daanu sanni ba Tamba mais Macky Sall mom dafa ñëw rek jàppale handicapé yi jappalé néew ju doole yi defal nu bourse di nu fay lool luma bëgg wax la ma diko féliciter bu baax lool dama bëgg na dem télé mbaama bind lettre jox ko ko moom madam Macky Sall madamam ñi ngi leen di ñaanal yàlla noon noonu handicapé yëpp maa ngi leen koy waxal ak silmaxa yi jàppale nañ yërëm nañ ñu bu ñetti weer yi passé dinañu jox sunu bourse yi ñu ngi koy ñaanal yàlla taxawaayam rafet na bi ko bi ñu kii bi feebar bi amee dañoo jox ñaari yoon fay nu bourse yi wax dëgg yàlla man ne maa ngi koy félicité bu baax li ni mel nag amee ci jàppandalu état bu Sénégal ak ay service déconcentrés li waral lépp lu jëm ci wàllu dund gi ak yeneen i miir yu mën a yombal nekk nu askan wa li ni mel nag ci jàppandalu maire bu commune bu Jaxaay waaw gis nga ni nga ko gisee ginnaaw bu tànt yi taxawee ah préfet mi ngi jéem lépp lu mu man ànd ak maire ak ñi nga xam ñoo koy jàppale ci ñi fi nekk dund dundin woo xamante bi dundin wu mucc ayib la buñ mënul am la woon seen kërit ñu am lu ko jige ci loolu lañ def tente yi tente ñu jéem cee am na ñuy basang am na ñuy matelas am na ñuy ventilo courant fi ndox a ngi fi ay toilette ngi fi donc ak encadrement tey ñoo xamante bi dañoo jóg rek bi mu passé accès ñu volontaire ndax mbir mi liggéeyal askan la liggéeyal sa gox la donc dafa am ñu nga xam dañu volontaire muy xale quartier bi muy waa waa dëkk bi ñu jóg ñu gën cee ràññee jamono yi nga xamante bi mooy ASC bi nga xam moo ne ci gox bi ñu koy wax ASC Jaxaay City City Jaxaay mu nekk fi ànd ñoom ñëpp globalement di jàppale ñu ràññee ci aussi mouvement bi nga xam ne dafa jóg aussi muy mouvement boo dafay jóg ngir xeexal askan wi ñoom it ñu jóg ànd ak ñun ànd ak xale yi ànd ak représentant préfet ànd ak waa croix rouge ànd ak bonne volonté yëpp ñu jóg taxaw ngir aar jàppale askan wi daal. chaque matin préfet moo ñuy jox lu ñu toogee ah, deux jours yi nekk ñu jox ñu pour. ñu toggal sinistre yi añ ak reer moom mu géré eh, le petit déjeuner waaw. waaw ah, ñun nag moom commune la boo xamee ne social la parce que jaxaay moo ko laaj waaw comme jaxaay chaque fois day am ay problème bu bu inondation ñëwee dañ ciy gis seen bopp ndax ku ne xam na ne jaxaay sax inondation la deuxièmement corona bi mu ñëwee monsieur le maire ak l'équipe municipale ak le conseil municipal def nañ li ñu mën ñun ñoo njëkk a génn ci département de Rufisque ci 12 communes yi.

Euh, xale yi maanaam taalibe yi bañ a génn yalwaani ci Covid bi waaw. waaw bu nit ñi gën a bëri dinañ yokk dinañ yokk parce que am na yeneen camp yoo xamee ne xam naa ne euh, d'ici peu dinañ tijji pour ñu mën leen ak accueillir. dalluwaay googee nga xam ne du wëy tax ba ñenn ci ñoom di sàkku rek ci nguur gi mu ut ay solution yu durable nga xam ne li ni mel dootuñu ko dund ba abadan. état bi moom li may waan rek ñu am kër nan xool solution boo xam ne delloo seeni kër. ñi amul kër tamit xool nu leen defe ñu ñu nekk suñu coono yi tamit amuñu kër di luyaas tey ñu fay suba nu fay ñu seetal ñu solution ndax ba amul wéeruwaay ku la dimbali rek nga bëgg macha allah damaa di fas am juróom-ñaari bant amu benn wéeruwaay. waaw difficile na waaye nag jàpp ci yàlla rek xam ne moom jaam moom day sabablu rek wut sa tabax aussi amal la njëriñ aussi da ngay sant yàlla ne lu yàlla def mooy noonu waaw ñu ngi sant yàlla di wut ndimbal rek waaw te nag vraiment ni pour le moment gis nañ yoon ñu ngi leen di déglu rek ñu nekk seen disposition ah waaw ñun ke ñu ñu ngi teg ci condition yu baax ñu ngi ñi ngi set parce que mbir mi dafa bari du ñun dong la laal nek ñi ngi tok dal di xaar ñu wax rek ñu japp ci lolu ñun. ah xana bu nu mëne jox dëkkaay mbaa mu defaral ñu rek ci am rek man awuma dole, mënu ma tax ñaari néeg moo am sama néeg wa ca dama jaboot sama njaboot ta ñew ñew ñu fi wa dafa am sama borom kër ñu ma baye li tamit ay jarbatam ñi ak man solution durable day passé wul ni ko président de la république waxé muy luñu am yaakar nak ndax buñ ko xam histoire mbënn xam histoire Sénégal xam ne mbënn yàgg na fi am ñi fi jaar ñëpp kenn ku nekk di ci jéem ay jéego ndax fii ñu taxaw tey histoire la ci wàllu mbënd ndax li tax mi histoire mooy 2005 ku nekk fàttali mbënd mi bi mu taree président de la république maître Abdoulaye Wade amoon yërmande jéem a toxal ni ñi andi leen fi boobu aussi moo waral jaxaay juddu bi président Macky Sall ñëwee loola daf koo gën a dëggal. ndax ci mbënn ci président Macky Sall lañ gisee koo xam ne dafa jël ministère plein jagleel ko mbënn mi ñu liggéey ci ba mu jur tawfeex Tivaouane Peulh ak tawfeex ñàgga déplacé ay nit def aussi ay yoon boo gisee mbënn mi li ma wax histoire mooy jamono yi ci ginnaaw danga daan wax ay Dalifort da nga daan wax ay ginnaaw raay sud ay ginnaaw raay nord ay yëmbal ay Malika mu tar lool jàmm gën si Kambaaw Tivaouane Diacksao bi président Macky Sall ñëwee def fa ay liggéeyu am solo ci ay caniveau fu ndox yi jaar jubbantiwaat yoonu ndox yi joyante ko ba nga xamé ndox mi fim daal jaar dinañ ñoo ñi ci kër yoy bayiko muy jall muy ay bassin rétention yépp ba taxna légui mbënd mi bo xolé tar taray bi mu doon tar tarewu ko gis nañ né yuuxu yépp ren côté yooyu amna tuti ga parce que amul lu ñàkk waye def na né mom ñi ngi sant yalla nga gis nag mu commencé ñëwaat jëm ci Kër Massar gi ni jëm si jaxay dem ba ay rek sangal kam ak yoy te yaakaar na yi wax wax na ko barki dem renforcer conseil bi ñëw wax na ko bi mu ñëwee yëkkati mat 10 milliards yo xamé li lii ñett yi dafa jëm ci walu ndimbal li ci dess moy nañ ci dafar lo xamanté bi mbënd mi da na nek ay mauvais souvenir ku nekk it xam na nak li wara li ren ndax lo xamé ñi xay xaymakat yi xam dañ la waron wacc ci ñent wër wàccee ci benn bés defe né ne looraange du mëna ñak joxé na deadline ndax ki né octobre ñu commencé liggéey yu am solo yo xamanté bi mbënd mi dinañ ko faté defe naa loolu dañu ci am yaakaar te matuwaay lañ ci jël tey yaakaar naa ne xëy na yëg ngeen ko wala jaar ngeen fa gouverneur ci ndigalul kilifa yi lancé na li ñuy wax opération fendi fendi nag ku ko dégg mooy lu tooyoon wow kon opération boobu aussi ñëpp dañuy bokk lëkkaloo ànd ci ak bi ànd ak ak gouverneur ñu xeex ko ba loola jëm ñu pompé kër yi service d'hygiène ñëw nit ñi mën a delluwaat seen kër canalisation bi wax assainissement bi ñu taxaw ci pour que loolu loolu jeex